bisimilah rahmaani maa ngi nuyu waa OTV di ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp di sant yàlla di julli sayd si Seydina Mouhamed sangu-sang yi bu ñu yàlla te fekkeewaatee at bi ñu ñëw di teewe ndogu bi fii nii si ñaay bi ñu nekk ay jeunes yu engagé yoo xamante ni chaque année dañuy def ndogu muy œuvre sociale ñu kontaan si lool ànd góor ñi ak jigéen ñi ñëpp nekk benn ñuy œuvre ci sociale di organiser lu toll nii dama leen di ñaanal yàlla yàlla nañ ko teewe ay at ren mooy cinquième édition bi kon sant yàlla bi leen yàlla mayee xolu joxe ndogu si koor koor loo def benn dañ la koy fay dañ la koy fulal kon sant yàlla bi leen yàlla xiiree si lu baax ñu nekk ay xale nekk ay jeunes nekk ay góor ak jigéen ñoom ñëpp suudew di jàppalante di dimbalante kon loolu sant yàlla la di ñaan yàlla dëwoon yàlla nañ ko fekkee tëdd woon yàlla na dàq ren te xalaat naan dina dàq ren parce que ay xale bu ñu booloowee di def lu baax yàlla da leen di suturaal da leen di dimbali kon nag sant yàlla di ñaan yàlla nañ ko teewee ay ati ati at si barke Seydina Mouhamed di ñaan yàlla bii yàlla bu mu nekk suñu mujjantelu koor di ñaan yàlla aussi luñ si ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu te yàlla màggal leen def leen ñu nekk ay mag yu am ñam si barke Seydina Mouhamed léegi man li ma leen di dénk mooy waa man li may dénk xale yi mooy ngeen gën a góorgóorlu parce que def lu baax yombul dina am commencement mais du am fin def lu baax loo xamante nii dafa dafa sincère yombul def lu baax yombul li ma leen sant mooy ngeen gën a góorgóorlu gën a engagé wu ba chaque année ngeen di euvre si lii man dama kontaan si yéen moo tax je de tout cœur avec yéen maa maa yéen tànk maa ngi si ñaay bi yàlla di ma may nooy may ànd ak yéen ci lii te magi ñaay bi ñëpp kontaan si yéen ñëpp bég si yéen ma leen di dénku rek lu baax amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am lu ngeen gën a góorgóorlu rek day gën a neex te yàlla na ngeen dund ba seeni sët sax di ko defat parce que lii lu rafet la man loolu rek laa leen di dénk góor ak jigéen mag ak ndaw ñaay bi ñëpp benn lañ ñëpp benn lañ macha allah yal na leen yàlla taxaw sàmm leen aaral leen boppam wasalaam. jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw man la soxna Jeena ba jeng ñaay ba yaayu xale yi waaw di leen sant rek di leen gërëm waaw di wax ne niñ ko teewee ni yàlla nañ ko teew ay ati ati at ndax macha allah li ñuy def nii initiative bu rafet la te lu neex la timit ndax ñun koñ bi ñëpp ñoo mobilisé wu seen yaaya ñëpp a ngi toog ñëpp di leen jàppale di leen ñaanal wax dëgg yàlla amuñu benn problème ñu ngi ànd di kaf di ree di yëkkatee ndoo di tegandoo lii ñu def nii yàlla nañ ko def ay ati ati ati at si daraje Seydina Mohamed te kenn bañ koo manqué ñëpp fekke ko ndax rafet na lool rafet na trop ñun moom ñu ngi koy rafetlu bu ñu nekkoon fii di xuloo ko xeex dinañ ñu jaaxal waaye macha allah amuñu benn problème jàmm rek la ñu am seen yaay yi ñëpp koo si gis ay yaayam da nga yaakaar ne moromam lañ kaf ree wékkante de bi fii wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi leen di ñaanal daal lu ñu man ren yàlla man lu ko ëpp déwén ndax ñu jublañ buñ fi nekkoon def naka sa du noonu kon dañuy xeex ak ñoom guddee ba ca waaye macha allah jaaxaluñ ñu de jaaxaluñ ñu benn yoon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa OTV dañ leen di ñaanal ndax at mu jot ngeen ñëw def si def seen liggéey ñu ngi leen di ñaanal yàlla na doon ay télé télé télé si daraje Seydina Mouhamed mënoon ngeen a seetaan nag waaye sant yàlla macha allah seetaan leen xam ngeen ne xale yi seen i rakk la rek ngeen jàpp si ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla yokk ba ngeen yëg ko ci daraje Seydina Mouhamed barke borom Tuubaa mi ñu yaakaar jërëjëf waaw li ma leen di dénk rek mooy ñu gën a góorgóorlu gën a dëgër dañ naan oyof ni xob waaye diis ni ëkk bu leen dara fëkk bu leen dara yóbbu ndax jamono bi neexul waaye sant yaa rek ni ngeen meloon démb ak tey bu dara tax ngeen changé ko gën leen a góorgóorlu gën a jàppante ngeen ànda doon benn yéenante jàmm ñun seen yaay de loolu lañ àndee te loolu laa bëgg ngeen àndee ko ndax duñ leen tagg ba pare ëllëg ngeen di def leneen ñu leen di xarab xamuñu loolu man daal gën leen gëna a suudew nek ben nekk benn allah jub jubal sax ci jaamu yalla bu len soxla yëfi kenn macha allah loolu daal laa leen di ñaanal sant yalla bu wër bismillah minas mina rajim bismillahir rahmanir rahim ak señ ma sama Mbàkke sama sëriñ ak borom du yool gëna yag gëna wër ma ngi ñaanal xalé yi di len dolé ñaax li ñu japp ni buñ ko bayyi nanti japp gëna deugër keneen ku nu mëna xëc mu ñëw ci ñu japp ko xëc ko ndax lu baax rek la ñuy def defuñu lu bon man noon nanoo tëgg seen i sabar fële mbaa ñuy def leneen naka su dul noonu waaye defuñu ko ñu ngi booloo nekk benn yàlla may leen xelum ñu def lii ci ndogu yi nañ koy def ay ati ati ati at fekke ka te tal ko kenn bana manqué sëñ Fallou Mbacké xam na loolu ndey caabi ñu ngi koy ñaanal ci ndogu yi la bokkoon yàlla def fekkewu ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom borom bépp néew bu fa fekk ak bu fa fekk ci daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di ñaax nag ñoom xele yi ñun seen yaay yi nii ñu jàppoo nañ ko jàppoo ndax yaay yëpp a ngi nii bu ñu xewlee ñun ñëpp ay jóg kenn du toog fu xale yi woote ñu dem fu ñu woote ñu dem li ñuy woote nag yàlla nekk lu baax te jig leen ci daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa yàlla leen fi yàlla yàggal ngeen am yu bari ñu dégg leen fu nekk ca kaw ca kanam daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki julliti mbokkum taalibe ku si nekk ñu ngi si nekk sa tur sant di leen baalu àq teg ci baalu àq ñëpp di rafetlu jotaay bi bu baax a baax a baax wax ne bés bi daal nekk na bés boo xamante ne nii depuis sept ba def na sept ans ak léegi nii ñu ngi koy def bi mooy édition bi nii ñu koy def kon ñu ngi sant bu baax a baax di wax ne amul lenn loo xamante ni nii rek ñu ngi ko siy rëccu di si di baax a baax a baax biñ xëyee suba gi tamit kaamit ñaanal ñi nga xamante ne ni ñoo dëkk si koñ bi dëkk tamit si bi rawatina tam wakaam tamit fi ñu dëkk nii tamit ñu ñaanal leen tamit yàlla suñu borom la yàlla suñu yàlla yërëm leen jéggal leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan tamit lépp loo xamante ne ñaan nañ ko rek ci te ci bésu tay bii ni yàlla nañ ko yàlla nangul te yàlla mu nekk suñu mujjëlu suñu mujjantalu koor yàlla nañ yàlla nañ yàlla boole tam si koor yi nga xamante ne mooy koor yi gën tam si koor yi yàlla nañ ko yàlla defal di ñaanal tamit ñu dëkk si koñ bi ñëpp mag yi xale yi ñëpp rawatina nag groupe bi nga xamante ni ñoom ñoo sos lii nii dem ba taxawal ka tey ba mu toll fi nii muy xale yi koñ bi ñu gën leen xam si waa ADB ñoom def nañ si loo xamante ni nii ba tey ji ñëpp ñu ngi daw tey ji ba ba ñaay bi yëpp tey ji génn tey doon benn tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp tam wax ne rek gars yi taw feex daal tey sur quoi waaw tey su ma amee tey conseil bi mooy joxaat jeunesse bi leen rek laa leen di joxaat muy saa gën a koñ koñ bi ñu dëkk nii dafa nekk koñ boo xamante ne dafa war a neex dafa nekk koñ boo xamante ne dafa war a ñëpp ku si nekk boo si duggee rek da war a sentir ne yow yaa ngi biir ñaay ba ñuy waxante dëgg di joxante cër ku si nekk jox sa morom cër quoi muy xale yi muy mag ñi ñu joxante cër joxante nañ cër sax mais mu gën a mu gën a mu gën mu gën a dëggu si ñun cër boobu nag gën a dëggu loolu bu ñu ko defee rek amaana liñ bëgg a liggéey suñ ko liñ bëgg a defar fii nii pour si ñaay bi dinañ ko defar te yàlla suñu borom dinañ mën a jàppale li ëpp li ëpp solo daal mooy respect respect daal moo ëpp solo waaw kaddu gu kaddu bu mujj bi moom mooy gërëm gars yi muy soxna yi ñi si ñi si nekk ñëpp muy suñu yaay yi xamante ne ñoom ñoo nekk feneen si waañ bi di gërëm tamit xam nga suñu suñu waa koñ maire yi paa yi mag ak ndaw ñëpp ñëpp ñi si nekk si soo ba léegi nii depuis depuis jeudi ba léegi nii ñu ngi si nekk tamit di daw depuis jeudi ba léegi ñu ngi si nekk di daw nii di di def di def ba léegi nii depuis jeudi ba léegi yaa ngi dégg ñu ngi daw fii Tidiane ñëw nañ fi démb démb vendredi bi xaadir ñoo fi nekkoon waa daayiratu saabatu rasul ñoo fi nekkoon doon ay xale tamit doon ay jeunes tamit ñu leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di ko rawan tamit si waa daayira tamit yoon waa ñu benn ñu xëyee ñu xëyaax ñun bu ñu gontoo ñu gontoo tamit suñ jëwrin bi nga xamante ne nii moo fi nekk muy jëriñ Masamba waaw di ko siyaar bu baax a baax di ko jox waa waa moo moo moo jëwriñ ñi fa nekkal yëpp yëpp yëpp ñu leen di sant di leen gërëm baax a baax di leen ñaanal yàlla suñu borom yokk sen fan may len guddu fan wér gu yaram may leen wërsëg ba liñ bëgg liggéey liggéeyal seen xaddim mu ñu gën ñu gëna mu gëna kawe mu gëna kawe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam a'udhu billahi samii'il min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi a'udhu bika min hamazaati sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni barkeb Sëriñ Saliou mbokk julliti mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si sa tur ak sa sant di leen siyaare bu baax tamit di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan yalla borom bi subhanahu wa taala bo luñu jéggel ñun ñëpp comme ni nga xamantene non lañ kaan defee sak weeru koor bu nekk ñi ngi fi ci wakam ci ñaay bi euh, ñi ngi nuyu nak mbollem dëkkandoo bo xamante gennul nga japp ci li nga xamante mom lañuy fasiyene di firel sak ane muy weeru koor ñu koy def séddale ndogu diko diko diko bëgg ni def nak sak at te bëgg nañ tamit mu romb fi bëgg nañ mu romb fii nate ay xale lañ tayit ñi si ëpp si ñun ñëpp ay ndaw lañ kenn amagu si karaw gu weex ñi si nekk ñëpp ay karaw yu ñuul rek lañ yore ñi ngi wax nag waa dëkk bi lii nekkul ñun kese ñoo ko moom dëkk bi yëpp ñoo ko bokk dëkk bi yëpp yit ñoo ko moom képp ku si ñëw jàpp defal nga yàlla nata ñun liggéeyalu suñu bopp yàlla la ñuy liggéeyal nata ginnaaw ba suñu borom moo ne euh, yaa ayyuhallazina amanu yéen yéen gaañ yi nga xamante ne da a gëm kunu nekk leen ansaarallahi di gëm yàlla saa su kon nag ñun liggéeyal yàlla rek moo ñu ñor leneen lu dul liggéeyal yàlla ñoruñu bañ na ko sax ba boo xoolee suñu tise di ñi ngi ci bind jëf jël maam seex daan na wax naan jëf jël li muy ndaw ku jëful dara doo jël dara képp koo xamante ne da ngaa jëf di jël waaye ku jëful doo jël dara lii nag ñi ngi ñaan yàlla mu fawxa sunu njor képp koo xamante ne sa ñaq dem na ci ñi ngi lay sant di la gërëm di bëgge ñëpp di kontaane ñëpp di ñaan yàlla nag télé bi nga xamante ne mooy OTV yàlla bokk ci télé yi gën a mag fii ci àdduna ak li ko wër ci barkeb sëriñ bi waaw ñu ngi sant dëkkandoo ñëpp ñëpp nag boo limee da ngay juum mais képp koo xamante ne mi ngi wax asadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ñi ngi lay sant bu baax a baax baax baax di sant tamit suñu mbokk chrétien ñi nga xamante ne ñoom it nag jàpp nañ ci nata tamit ci dëkk bi lañ bokk nata sëriñ bi moo ne woon waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraxu ngooy léegi ci buumu yàlla gi bu dëgër te bu leen musa bàyyi ñi ngi sant ñëpp di bëgg ñëpp ataman naa lakum xaaman sax yi daan wa suxuran sax yi daan wa ayaaman sax yi daan maxluun taten bi seqaten wa salaamatin wa salaamu aleykum wa rahmatullah barkeb sëriñ Saliou jaajëf